plateau ci sama site. Malal Junior Diagne. tijjite l'école bi dina ami jafe-jafe lu ni mel waa sel sotantik ñoo ko xamle gannaaw bu ñu jëlee dogal boycotté ko ndax dañoo bëgg ñaawlu ne la ñu teq ak lëf ci seeni payoor Casamance dañ fa def jumtukaay yu xarañ jëm ci wàllu dem ak dikk ci géej loola tax ba Corée jaa di kon jébbal lu toll ñaar fukk ak ñeent ci milliards réewum Sénégal. gëstu bës bi tey ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci la nga xam ne mooy après appareil euh, euh, électroménager yi ba ko biti réew di jaar ci ci conteneur yi euh, ñambaas ñaareelu pàccu xabaar lu jëm ci wàllu tàggat yaram Sénégal RD Congo tey ci wàllu quart de finale Afrobasket édito bi ci wàllu politique toftalte yéene kaay yi mu nekk loo xam ne ci tënk bu ngeen taaxirloo nu jukkeen di ko ponk yi moom gën a fees jaajëf Aliou Diassé mu ne ci wàllu xarale wi sels authentique ñi ngi taxaw tembe ci kon na saxal te jiite l'école bi ñu jàpp ñetti ci fan euh, ci weer octobre ji noo séntu loola ngir ne taxaw tembe ci ñaawlu la ñu teq ci seen i payoor ñoom jàngalekat yi volontaires yi vacataires yi maître contractuels yi ñu ni loola dañoo bëgg xam lu ko waral ak itam koom yi leen teq ñu delloo leen ko ndax lu ñu nangu doon mbéyu ndëpp lii Abdou Fati mooy seen njiit. ba ñu paree nag si secrétariat permanent dañu ne ñun waa Sels authentique ñu ngi woo jàngalekatu Sénégal yépp surtout jàngalekatu Sels authentique yi ñu boycotté rentrée scolaire bii bi ñëw le 3. boycott bi nag ni ñu koy defee mooy nañu tenir ay assemblée générale d'information si buntu inspection yi li waral boycott bi booy mooy vacances yëpp dégg ngeen ñu genn wàllu jàngalekat yi nguur gi dafa jël seen genn wàllu salaire te li ko expliqué mooy lan dañuy def ay simulation ñun nag nee nañ leen suñuy def ay simulation nañ ko def feneen bàyyi suñu salaire yi dañu manqué de respect loolu duñ ko nangu beneen problème bi mooy validation bi Ablaye Matar Diop ne décret bi dina génn balaa ay e- balaa école di ëpp décret bi génnul ba tey formation des instructeurs adjoints plan de formation yi defuñu ko ba tey mutation des inspecteurs dañu constaté ni jalgat yu bari bokk na si et également capital décès maître contractuel yi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi koy xaar mais boobu ba tey capital des yi kenn wu ko ayant droit yi njëriñ yaa ngi xaar seen jabar yaa ngi xaar seen papa yeeg seen yaay yee ngi xaar wax tey lañ kii moo koy joxe finance moo koy joxe wala éducation ñu ngi dénoncer également reclassement 2006 bi nga xam ne règlement ba tey si finance la dépendre waa finance réglé ñu ko c'est pourquoi nee nañu enseignants yëpp surtout militants Celsu authentique yi et surtout yi nga xam ne tax a jóg ñu dànqaafu nguur gi tenir à témoin l'opinion publique nañu daje ci inspection yi le 3 bañ a dem def rentrée administrative dénoncer cela def ay assemblée générale après déglu ñu xool ban attitude la ñuy jël par rapport ak xale yi ñu wax ci wàllu defee jumtukaay ca Casamance jumtukaay ci wàllu dem beeg dikk bi loola moo tax ba Corée du Sud Guinée ñaar fukk ak ñeent ci milliards jébbal ko nguuru Sénégal ngir ñu daal di door liggéey ci weeru décembre ji Mamadou Fall. ay milliards yu bëri yu ñuy dugal ngir amal kon apport gu bees jëwriñ euh, d'état bi euh, yor coopération internationale Karim Wade dafa bëgg rek ibbi yoonu Casamance yi jaare ko ci ab convention ak Corée du Sud. c'est un projet ko ñeenti milliards kon la Corée du Sud jagleel Sénégal mu di wàllu kon financement ci euh, infrastructure portuaire euh, ñaari bato yu yees ànd ak euh, kaaraange te loole kon dana may rek ñu daal di yombal dem ca Casamance noppi itam amal ci ay port port yi nga xam te ni dana am ay bruit ak infrastructure ay tali wàllu frigorifique itam loolee kon dina laal rek région yi nga xam te ni moo di Fatick Kaolack ak Casamance. Kaolack et de et de Casamance. projet bi dana baax lool ci wàllu économie ci région wu Casamance dana dooleel sax lii di intégration wu sous-région bi di maanaam dëkk yu ñu dendool. Euh, ce projet boobee day yombalal li nga xam te ni moo di kon dem ca Casamance mu doon dem direct poñ ak poñ te ñi nga xam te ni ñoo ñi koy jëfandikoo transporter rek usagers yi euh, dootuñu kon euh, subir li nga xam te ni moo di tracasserie douanière yi te loolee itam dana gaawal yoon bi yoonu dem ca Casamance mu di nag projet boo am njariñ te loolee sax dana impact ci li nga xam ni moo di économie bu Casamance. ci ñetti at liggéey bi dana door kon ci njeextalu atum 2011 bi projet d'infrastructure maritime bi war na jeex ci ab délai bu ñaar fukki weer ak ñeent. ñu jàpp ci Casamance googu itam ñi di waaye MFDC ñi ngi ñàkk rafetlu euh, jàpp gënu jàpp fukk ak ñaar ci ñi nekkoon ca ñoom loola ndax dañoo ca bàyyi woon ngànnaay yi ñu diggoon leen liggéey ci Ndakaaru euh, te nee na ñu la ñàkk rafetlu mooy euh, lañ leen diggoon yëpp ci wàllu wutum liggéey defuñu ko loolu moo tax ba gaañ a taxaw te mbay démb ca buntu pare ba ngir yuuxu ba ñu dégg leen loola kii di kenn ci seen njiit ya jot na ci yëkkati ay kaddu euh, Kamuke Diatta lay wuyoo jokkoo mag Daouda Diouf. nguur gi tenir ñu promesse mais nag euh, ñoom tamit dañu waroon a euh, toog ñu xalaat xalaat bu bu métti nag bu am bu am fayda. pour ñu def affaire boobu war ñu jóg nii ñu dem palais c'est pas c'est pas respectueux quoi encore euh, état même ci boppam waruñu humilier xale yi ci façon bi quoi ça vraiment c'est de l'humiliation c'est la la non considération je suis pas du tout d'accord nguur gi moo leen piégé parce nguur gi dafa yónni benn xale bi nga xam ne mosul mosul dugg ci àll bi mosul xam sa fan lay xale yi toog xale yi toog ñoo ni leen dem nax xale yi pour ñëw am audience ak président bi ba pare ñu nëpp leen mu ngi ñu ngi fii côté front de terre avec cinq cent francs cinq cent téeméer la leen jox pour ndékki bi seen ndékki bi ñoom di set téeméer ci suba ndékki bi gis nga loolu baax na c'est de l'humiliation ñu ci xabaar yi paludisme moom ñu ngi koy xeex bu baax ca daanab Sigicoor foofa ca daanab Richard-Toll gannaaw bu ñu jógee Sigicoor gaaña jël nañ ca jëli dogale ki matukaay taxaw te tamit ci nëpp ko fexe ba daal di génne li toll ci fanweeri junni ci moustiquaire imprégné jébbal ko askan wa ngir ñu caa nelaw fexe kon ba yooyu bañ jot ci askan wi màtt leen ba jox leen jàngoroy yi sibiru al Ousseynou Diagne tey si tey ñi ñuy waxe daanaka téeméer yoo jël lu yées ñett nit ñoo ci am si bopp. bi ñu wàññee doole si bureau ci Richard Toll ak li ko wër ñi di kilifa dëkk bi lëkkaloo ak kër docteur ngir amal xare bi nga xam ni yaakaar nañ ci génne si bureau ci diwaan bi mu di ab nisër bi xam ni gis na lool waaye tamit des na ko mën a amal fi li nga xamale docteur Algay Ngom moom lañ toftal ci médecin chef district bi. daanaka si yi ci ëpp. fekk nit ñi dañu doon génn sax biir district. donc loolu mooy waral euh,

ko ñaari fukki poste de santé te juróom yi ñoom ñëpp ñu nekk ci biir commune bu Richard Toll district bi am lu toll ko téeméer ak juróom fukki junni doomi aadama yi fay yeewoo am nañu tamit ci seen i jaar-jaar ay xare yi nga xam ni jot nañ ko amal fii ba fànq feebar yi mel ni bilharziose fii ci biir diwaan bi ak naa Alou Seynou Diagne RFM. RFM bi leen di xibaar saa su si wàllu politique bureau bu politique bu parti socialiste amal ndaje démb euh, dañ ca waxtaan ak lu jëm daal ci euh, la nga xam ne mooy waajal seen ndaje ëllëg ji moom moo jàpp jëm ci taxaw tembe ci wetu comité central am xalaat ak gëltu jëm ci waajal woote yi ak itam naka la ñuy waxtaanee candidature unique bi ci biir Benno Siggil Sénégal ak itam ay woote primaire bu ko yittewoo ci biir seen parti boobee di parti euh, socialiste Serigne mbay caam jot ca indi ay kàddu ngir. gindi askan wi ci la ñu nam a def ñu déglu ko. dañ ne woon dañuy def benn daje boo xam ne bii dañuy au maximum membre bureau politique ñu ñëw. parce que soxla yi ñuy waxtaan moo ko jar. te gis ngeen ko suñu présidentu région yi. ba Kédougou Ziguinchor ñëpp ñëw nañu. pour waxtaan solo bi mooy. comité central joxoon na mandat secrétaire général ak bureau politique ñu dem ci séminaire bu bennoo yi li ñu jëlee ci séminaire yëpp nag moom lañ leen doon tënkal day di leen ko wax pour que ñu préparer suñu réunion comité centrale bi nga xam ne samedi. ok est-ce que jot ngeen waxtaan ci candidature yi. ci non non non non parce que loolu comité central moo koy waxtaanee. comité centrale moom mooy ni ñuy wax parlement parti mooy suñu parlement mooy suñu assemblée nationale parti moom mooy jox digal bureau dañuy def rapport pour exposer bureau politique ne tel jour ak benn wax nañu lii tel jour ak benn wax nañu lii bés bi wax nañu lii bés bi wax nañu lii fii la ñu toll lan léegi mooy seen xalaat lan ngeen di ñuy wax pour ñu def ko pour jéego yi ci topp. suñu paree réunion comité central bi déglu ñëpp. PS dana wax lan mooy nekk position ci question yi nga xam ne moo nekk en débat ci benno ak ci présidentielle bi. ci biir PS dina am ay primaires est mën nañu am déjà idée ci ñi ma bëgg a wax. dugguleet xam nga. bi ñu dem élection présidentielle 2006. dañ ne woon ku bëgg nekk candidat na nga wax ne bëgg ngaa nekk candidat bi ñuy fal suñu secrétaire général ci suñu congrès octobre 2007 dañoo waxoon tamit ku bëgg nekk candidat na nga wax ne nekk nga candidat mais loolu démocratie parti socialiste la loolu ndamu parti socialiste la. ñu jëm nag ci gëstu bi tey jii ak appareil menacé yi bawoo ko biti réew dugg ci conteneur yi ñëw ci senegal ca banlieue bu Ndakaaru ña nga ni fa xuus te ñu di ko jëfandikoo jaaykat yi ni. yëf yaa ngi dox ñu noo jaayee mburu Salif Sow. Oumar Diagne ñu ngi ko fekk moom képp ci magasin mu toog di xaar kiliyan moom mi ngi toog ci digg bagaasam yi nga xamante ni Europe lañ ko jëlee yenn yi ay tele ay rajo ak it li nga xamante ni ay dàll ak it ay liver ñoo fes dell ci magasin bi bagages yi leen nag am na ñaari mbir yoo xamante ni ñoo ca nekk France lañu jóge ñoom ñëpp te benn beesu. bazaar la daal lépp la ñuy jaay. waaw gars yi ñëw jënd parce que lépp. original la. wante teewul ne nee na mbir maa ngi dox bu baax a baax venant yi comme ni ko gaañ yi di woowee dafa jar. yooyu gars yi taamu nañ ko trop. kon mi ngi dox. waaw mi dox taamu nañ ko. ci war a mën ci yi nag fii buñ ko ubbee yàggul calculé guñu ko quoi. mais moom mi ngi dox quoi. jëg nag yi ñuy jaayee bagage yu jóge Europe taxawut benn place njëg li day wéeru si dépense yu borom marchandise bi amalee balaa muy egsi fii ci Sénégal Ramatoulaye Diop moo ñu ko xamal jaaykatu frigidaire la yu bàyyi ko Angleterre. ça dépend rek ci conteneur bi ni muy ñëwee daal bu dee taxi dafa cher mun nañu yokk prix bu fekkee ne seerul nag ñu suñu frigo moom du cher vraiment. ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngay jaay ay venant yu jóge Europe wala États-Unis sax benn bëgg-bëgg bi la am muy nguur gi wàcce taxi yi. bu ñu sañoon ñu wàññi ko wàññi taxi yi. Salif Sow Pikine rajo Futur Media. Salif Sow ci doon Louga Kër Mbargu foofa itam nit ñaa ngi jëfandikoo appareil yooya jàpp ni ñenn ñi ne lu fa baax ñenn jàpp ni ay xuuta képp la. Ibrahima Khalil Sène ay télé la ay rajo cassette ay mat la ak ay réfrigérateur ak tamit ay matériel électroménager ñu ngi koy exposé ci ay magasin matériel bi donte beesul waaye askan bi sopp nañ ko lool ñeneen ñuy jàpp nañ ni njëgum daa yomb lool te njëriñ bu ñuy fekk ci matériel boobu moom la ñuy fekk ci matériel bu bees tàq bi ngay jënd ci ay njëg lu cher waaye nag borom kër gi ñu tase te mu jotoon émigré moom nee na amul lenn lu mën a tax ba matériel boobu ñu koy fekk ci suñuy marché matériel boobu amatul benn njëriñ ci dëkk yu muy jóge ngir tàggoo ak matériel boobu moo tax am ko yomb lool ci dëkk tugal yi daanaka amatuñu benn njëriñ te lu si ëpp ci mbalit bi lay mujje wala ci ay réparateur yi nga xam ne dañuy télé am ay pièces de rechange waaye nag ñenn ci ay émigré yooyu yónnee matériel yooyu ci ay conteneur ñoom jàpp nañ ne gën a mën a tax ba ñenn ci seeni mbokk am ab xëy ak tamit indil ay koppar ci njaboot gu ñu bàyyi ci réew mi ba tax nag matériel boobu même boo demee ci garage yi ci biir kër yi ñu ngi ko fay jaay Ibrahima Ibrahima Khalil Sène Louga RFM. Ibrahima Khalil seen yooyu le conteneur nga xam ne gaa ñi dañu cay ñuux mboolee mi seen i jumtukaay yu ñu jóglee biti réew ñuqi ko ci mim réew jaay ko si gi itam am nañ ci lu ñu ci gis jàngat ko ci Abdoulaye Sambou Abdoulaye Fam ca ca Touba Mbacké li ci Touba marchandise yi bàyyeekoo bitim réew te ñu gën leen a xam ci ay venant dañu leen di yeb ci ay conteneur bari nañ fi lool koñ boo dem wala ruq boo dem fekk fa magasin yi nit ñi fees fa dell boo duggee ci biir loo soxla ci ay produits mën nga ko faa fekk dale ko ci électroménager ba ci piis jaare ko ci mobilier ay vaisselle ba ci ay yére lépp dañ ko fay jaay ci njëg lu yomb ndax baax na wala amal na njëriñ askan wi ci loolu jot nañoo taataan xalaatuñ commercant yi ak consommateurs yi. dérangé wuñu trop trop ci suñu liggéey daal. Hmm. parce que Touba moom en fait commencé nañ ko xam léegi parce que tamit bari nañ ci ay coono. jaadu ñi nga xam ne dañuy andi conteneur yi xëy na seen i bagages dafa mel ne ni muy dikkee ak ni yi di dikkee dana am différence ba nga xam ne bu yàggee tuuti ñi nga xam dañoo jëloon ay place da koy fayal jaar ko ci taxi yi war jaar yëpp bu yàggee tuuti da ci am ay jafe-jafe bu fekkoon ne mën nañ koo gën a tegaat ci yoon na côté boo xamante ne nii baaxee na fa daal am na yu ñuy indi yoo xamante ne wax dëggam yàlla amal na avantage nit ñi te tamit soo xoolee conteneur buy soog a wàcc ci tàng-tàng bi rek gis ne day am ay frigo yu baax xëy na nag frigo yooyu la nit ñi di jënd après ñu bàyyi fa mbalit yi ku ñëw dal ci mbalit yi da sonn franchement mën nañ wax ne xaw na wàññeeku njaay mi moom léegi ndànk-ndànk rek waaw ni mu daan demee bu njëkk moom wax dëggam yàlla demeetul noonu léegi moom njaay ndànk-ndànk rek quoi ndànk-ndànk rek daal clients yi wàññeeku nañ nit ñi niñ daan jëndee wàññeeku nañ sëñ bi nga xam ne daje nañoo ak moom moom ne na jot na nag ñu arrêté phénomène bi ca ba muy teel li nga xam ne ay produit la tey nekk Europe doon ay genre du ma wax mbalit parce que mbalit ñaaw na mais ay produit yoo xam ne ko sànni noonu ñu koy jël di ko sëb ci conteneur di indi fii nii dañuy dem ba fii dañuy ñëw feesal ko ak ay bagage yu noonu te duñ amal benn njariñ que fermer les frontières demande nit ñi ñuy def ay transfert de technologie que ñuy def ay transfert de produit transfert de technologie moo am solo Abdoulaye Fam Touba RFM. RFM aljuma tey ji dina mel na kon talaatay ndeer ci gaynde Sénégal yi ndax fala bu dañu duma waa RD Congo ngir génn ci seen quart de finale gën a war a suubu ñeenti waxtu seen digg ak doomu Congo Kinshasa Congo euh, yi nga xam ni mooy RD Congo lay doon loolu kon jàpp nañ ko ca salle 26 mars bu map bu Bamako ca lañuy ñuy amalee jongante bi senegal bu ci amee ndam dina bokk ci demi-finale yi war ca dajante ku génn ci euh, jongante Nigeria ak Mozambique Cameroun moom itam dina laaleeg Mali mi dalal xew-xew bi euh, bu ku ca am ndam ci ñum ñaar ci quart de finale tey ci ngoon di nga amale wala demi-finale ak kii di Côte d'Ivoire wala Angola loolu kon tey ci ngoon lañ ko jàpp ca Bamako wàllu football la ñuy waxtaanee ak wàccaayu loola di Sénégal euh, Île Maurice wala Île Maurice Sénégal juróom-ñeenti fan la ko jàpp ci weer wii di ñëw. Euh, Sénégal doonte qualifié na ci Coupe d'Afrique ba noppi mission bi gars yi jàppoon ngir kon wut fa gaañ a dëkk ak seen daluwaay yàq yooya. danu ko jàpp léegi mission avancé lay doon bi maanaam daal mission dawlu euh, jéem a jiiteel gone yi ñaar ci wala ñetti ci fan la tànnoo euh, ca la nga xam ni moom moo di wàllu dëkk boobu di Port-Louis ngir nag ñu mën leen daal wutal daluwaay Sénégal nag moom mooy jiitu ci poulam jël na pay qualifié ci Coupe d'Afrique. football bi biti réew dañu ko jàpp ci championnat européen yi dañu ko ndëxëñ ci yenn ci ay jongante mënees nañu ko jàpp ca France am na ci Auxerre ji ak Dibeer ji Saint-Étienne Auxerre Lille Rennes Marseille ak Brest Paris Saint-Germain ak Lyon Espagne ñu jàpp ni Barcelone dina fa laaleeg euh, Gijón ca Allemagne Hoffenheim ak Bayern Munich dinañu laale Bayern Munich fi toll nii euh, nekk ci euh, jongante yu baax di dóor gaañi Euh, Hambourg ak Schalke 04 dinañu itam jongante Fribourg Papis Demba Cissé ak Mönchengladbach euh, ca Italie jàpp nañu ca ñaari jongante yi war am ci aser ji ak dibéer ji Juventus mooy dalal AC Milan bu Zlatan Ibrahimovic ak euh, Clarence Seedorf Inter Milan bu Diego Forlan mooy laale ak Naples ca Ingleterre jàpp nañu ko fa Newcastle ak Blackburn ak Manchester City Bolton ak Chelsea euh, dinañu laale euh, lamb laale moom dina am gannaaw ëllëg lay doon diggante guy gi ak Bazooka diggante itam Saloum Saloum ak en 2000 yooyee bëre mooy tijji saison ren bi. xibaar yi ci RFM. bi ci wàllub euh, politique mel na ni kon amul ñu daal di xuus ci wàllu sociétal Aminata Goudiaby xale yu jigéen yu bëri bëggatuñoo am jëkkër laataa ñuy am fanweeri at ndax nee ñu njàng mi ak wut liggéey moo ëpp solo Jeanne Boissy ab étudiante la. je crois que avant de se lancer dans un mariage mieux vaut au moins avoir petit travail pour ne pas trop trop déranger le mari et aussi pour apporter le un peu de support à nos parents. Fatou Gueye di beneen étudiante moom nee na xalaatagul am jëkkër te moo ne day am na ñaar fukki at ak juróom-benn waaye nag nee dafa bëgg gën a sori ci njàng mi. plus ngay avancer plus ngay da ngay dem ba le mariage dootu nekk sa préoccupation première. te it moom nee na teel a am jëkkër sax. day yàq lu bëri ci carrière ku jigéen ki. par exemple sama copine yu moo doon àndal ñu teel a marié wu ñi ci ëpp bon. du ma ne du ma ne elles ont échoué mais dañ teel a arrêté seen étude alors que ñun ñoo ngi fii di continuer c'est pas parce que ñun raw nañ leen wala dara mais c'est une question de conviction. Awa Thiam di xale bu jigéen bi soog a am bagam am lu toll ci ñaar fukki at rek moom nee na fii benn weer day marié nee na am na ku ko bëgg a takk te nee na du bañ moom nag dafa jàpp ne mbir mi da ngay xam rek nooy organiser sa bopp. étude ak mariage bokkul mën nga sëy en même temps nga jàng l'essentiel c'est de parler avec nga wax nga waxtaan ak sa jëkkër euh, jigéen moom fa kii yow mooy sëy. da nga dem ba benn moment nga bëggal kii mariage aussi affaire bi fekk dem na yoonam. donc boole ko gis daal ku mu bëgg ku ki ki ko bëgg dem sëy jigéen ñooñu nag li waral ñu xalaatee noonu moo di dafa am ñenn góor ñi ni ñu doxalee Adama Seydi di wax ni am na ci ñoo xam ni yoruñu seen jabar ci ni mu waree moo tax moom it ni bala moo am jëkkër dafa amal boppam ba pare wóoruwuma leen parce que ñoom dañuy changer leneen lu tax xale jigéen ñi gën a ragal teel a sëy moo di góor ñi ci boppam bëggatuñoo takk jigéen ju liggéeyul wala sax jàngul Fidèle Mendy di ko dëggal di waxit lu tax xamul dara utiwoo kooku wax dëgg yàlla yaakaar mu mun a jàppale jëkkëram ci njabootam. Ibrahima Ba moom ab père de famille la ancien comptable moom nag mu gisee ni ni xale jigéen di defee noonu la ndaxte dëkk bi dafa metti te ku nekk ci sa bopp nga war a compter. dina tax ñu mën a jël seen bopp en charge ëllëg bu dara amee parce que ñun ay jullit lañu moom à quatre-vingt-quinze pour cent musulman donc euh, nit ki naa am benn ñaar ñett ba ñeent donc day am problème prise en charge donc là. day mën a man ku jigéen laa àndal fi mu toll nii mais jëkkëram bu defee mu def bu deful mu def c'est ci loolu nag am na ci xale góor yoo xam ni neneen la ñuy xalaatee ndax nee ñu mbëggeel moo ëpp solo lépp. RFM li ci yéene kaay yi. master office bi ngeen taamu moo leen di jagleel ay salon cuir ci 699 000 francs rek.